nañu Bassirou Diomaye Faye mu validé euh, parrainage mais euh, comme niñ koy wax waxee Bassirou mooy Sonko euh, ñu ngi sous-entendre que est-ce que dinañu valider yeneen dossier wam yi nga xamante ne jamono ji tàbbel nañ ko foofee ca conseil constitutionnel bu ñu demee ba toll foofu ci ci ci ci réew aussi c'est pas un peu inquiétant est-ce que. mais c'est inquiétant maa ngi seetaan keroog benn débat au niveau de de de de ci benn télévision française mm-hmm. ñu naan waaw au Sénégal. opposant bu nekk n'est-ce pas nga jaar prison pour nga mun am daraja et cetera et cetera Cité Kaw Ablaye Wade Idrissa Seck et cetera et cetera man dama ne loolu gàcce bu rëy la. Mhm. ndax ci société démocratique war nga mun nekk opposant mhm. opposé de façon radicale. te kenn du dugal ci biir kaso. Mhm. kenn du ci biir kaso. loolu dafa war a jeex fii au biir euh, ci biir Sénégal def ci suñu bopp que képp ku jóg rek di wutu nguur war nga war dem à la prison. wala ba ki nga moom moo nekk au pouvoir war na la faagaagal waruñu ko nangu. dafa war a jeex deuxièmement su ñu amoon ñoom tuuti culture politique. Mhm. Macky Sall ak ñooñu su ñu amoon tuuti culture politique dañu war a xam ne opposant bu déterminé. Mhm. bu gëm boppam déterminé. Mhm. n'est-ce pas dara mënu ko empêcher pour mu egg pouvoir. waaw pe amul benn pexe boo xam ne mun nañ ko nas ak fu ñu ko mëntee nas. <laughs> ay civil ay militaire ak yeneen ak yeneen ay ay takkat bokk ci nas ay pexe. Mhm. ñu tere benn opposant bu déterminé pour mu arriver au pouvoir. a histoire Afrique rek. Mhm. xool histoire ab a commencé par Ablaye Wade. oui diggante diggante quatre vingt huit et deux mille lan la nguur Abdou Diouf deful pour mun a empêcher Ablaye Wade may ko au pouvoir. Mhm. même si Ablaye sa décharge. gis nañu ni que sax ñu teg Ablaye Wade daan day jël loi d'amnistie. amnistie ko pour mun a bokk. oui waaw moom musul utiliser loi wala condamnation. Mhm. pour écarter benn candidat. Mhm. toujours même su dee dañuy jàppal Baye Wade topp ko teg ko ay daan n'est-ce pas day jël loi d'amnistie. Mhm. seetaan leen pour ñu mun a bokk. naka nga xalaatee loolu Macky mun Macky mun ko def. mais du ko def. parce que moom moo koo xam ne bëgg na nekk champion arène te bëggul bëri ak mbër ñu mag yi. Mhm. Euh, noonu laa ko mun a euh, misaal. Mhm. daa mel ni <laughs> n'est-ce pas. nga bëgg nga bëgg nekk champion arène. Mhm. te doo bëre mbëgg mbëri mag yi. chaque fois da ngay fexe mbëri mag yi n'est-ce euh, pour nga nga bañ a joŋante ak ñoom. 2019 c'était la même chose Khalifa Sall nekkoon na fi benn candidat bu siiw maire Dakar dafay réalisation ah, mu mu mu jógal affaire caisse d'avance bi pour éliminer ko. Karim Wade la même chose. léegi c'est Ousmane Sonko donc. moom musul yaakaar ne mun na affronter ay candidat yu mag musul wóolu boppam. daf mhm. ne mun na affronter candidat bu mag. Mhm. mu jàll. mais li ci Karim Wade di ci euh, Khalifa Ababacar Sall est-ce que loolu moo ci Ousmane Sonko naka nga jàngatee kaw Ousmane. mais c'est la même est-ce que jàpp nga ni il a réussi quand même à l'éliminer comme comme ni mu ko bëggee woon depuis le début. oui mais tu sais les avocats ils se battront jusqu'au bout. oui ils ont dit mhm. ma gisee ku mel ni ma ma soxna ma jël kaw ma soxna Kane rek. Mhm. ma soxna bi muy nekkee ministre ci nguur Ablaye Wade. Mhm. fekk man maa ngi lycée. Eh, di jàng. Eh, eh, wala boog maa ngi doogoo dem université. te mag la. mag la oui nekk na société civile. n'est-ce pas waxuma waxuma sax ñeneen yi parce que ñooñu yàgguma leen. su ma gisee ñoom Kureshi. su ma leen gisee. xeex bu ñuy xeex pour mm-hmm. Ousmane Sonko. Mm-hmm. te fay ñu leen dërëm. oui fay ñu leen dërëm. contrairement avocat état bi nga xam ne ay millions millions lay leen di fay. Mm-hmm. ci xaalisu contribuable suñu suñu suñu dërëm. li ñu jël leen fayal. di ko xeex bénévolement ak lépp liñ di daj. ci ay xaste ay saaga yàq seen der par a peut-être sa seen seen marché. n'est-ce pas xam ne mbir mi. n'est-ce pas li ñu toppee Sonko neen la. Mhm. te ñëpp xam nañu Sonko toutes les procédures yi nga xam ne moom la ñu utiliser contre moom ce sont des procédures xam ne li ñu ci yóbbu mhm. la. Mhm. dès le début on le savait. oui ak docteur gay ñoom ñoo inventé n'est-ce pas su ce complot là. dañ ko inventé dès le départ. waaye nee nañu lii moom duñ ko bay mukk. parce que foog ñu am dara pour éliminer ko affaire Mame Mbaye Niang mais fi caaxaan la. yëfi caaxaan la ni ko ni ko ni ko justice traité rek. Mhm. n'est-ce pas alors que am nay dossier de diffamation yoo xam ne mu ngi xaar. Mhm. Eh, dossier pas Alé mhm. ak directeur COUD. Madiambal Diagne juge ak ñeneen ak ñeneen. mais ñu accéléré ko. accéléré ko de façon vraiment vitesse électronique. n'est-ce pas uniquement pour mun ko condamner. le fait que ñu koy enrôler ça quelque à moins de deux mois des élections loolu yëpp. dafa leer ci boppu Sénégal yi leer ci boppu adduna bi nii que. Mhm. Macky Sall moom mu fasciné n'est-ce pas éliminer Sonko de la course à la présidence parce que pour Macky Sall. Mhm. c'est une question de vie et de mort. mais comment. pour moom Sonko warul a nekk candidat ba muy nekk président maanaam warul nekk président. mais pourquoi. te pour mu bañ a nekk président mooy mu bañ a nekk candidat. donc il est pris à tout tout tout. tout mais qu'est-ce qu'il y a dañ fi def. et il a il a mis en branle tout l'appareil la l'appareil policière la gendarmerie la justice il a tout mis pour mun ko éliminer donc fu mu nekk nii. Mhm. man gisatuma li gisatuma daal mooy mun a arrêter Macky pour mu empêcher suñ ko mu nekk président. du loi. Mhm. du yoon du loi. du yoon du loi non du yoon du loi. Euh, dara mënatu ko appro dara mënatu ko empêcher. dama dëgg sax ay dof yoo xam ne ñu ngi ci ñeneen ñu ngi ci biir média bi. Mhm. ñu naan waaw raison d'état raison du raison d'état. c'est le fait du prince y a prince boo xam ne. n'est-ce pas dañuy jël appareil d'état jox ko. Mhm. bu jël appareil d'état bi n'est-ce pas utiliser ko di ci xeex ay citoyen mhm. loolu moo am waaw moo am nag ay administration ci biir administration ñoo xam ne amuñu courage. oui ah, ci biir état bi yoon amuñu courage wala boog seen intérêt la ñuy jiital. Mhm. ñu jàppale ko ci loolu. ñu jàppale ko ci loolu mais est-ce qu'ils vont arriver à leur fin parce que même bu fekkente ni euh, physiquement éliminé nañ ko. mais euh, dégg naa sama beneen confrère naan Sonko du bokk mais Sonko day bokk parce que son poids électoral euh, dafa war a peser ci élection yi de. Ah, c'est clair c'est clair je pense que tu sais man man yaakaar ne euh, d'abord yi va peser. Mhm. parce que am na am na base électorale loolu kenn mënu ko wax waaye tamit am na ñeneen candidats yu am solo yoo xam ne eh, ñu ngi bokk ci élection bi. Mhm. ñoo xam ne boo ay nitu ay nitu ay ay nitu yu déggu lañu mhm. même su dee bokkuñu ak moom mhm. ah kon Thierno Alassane Alassane Sall mun na wax li muy xeex am matière de bonne Sonko lu muy xeex en matière de bonne gouvernance transparence moom lay xeex mhm. Boubacar Camara c'est la même chose am na ñeneen ak ñeneen euh, Cheikh Tidiane Dièye moom la mu jàlloo wala tous ces gens la mais c'est bon qu'ils soient dans la campagne ah. te man dama yaakaar ne Amadou baax sax ci boppam su yàlla defoon mu toog. Mhm. dina opérer une rupture par rapport à Macky Sall. vous pensez. dina ko opérer. par rapport par rapport à Macky Sall par rapport au hommes ki ont incarné. Mm -hmm. n'est-ce pas ce système autocratique de Macky Sall. mais amul choix a l'impression que le président dafa foog ne à travers Amadou Ba lay amee troisième mandat bi de. mais day lu président par boppam. Hmm. parce que bés bu Amadou Ba toogoon bu bëgg a nekk ci biir wetam. di dogal di ko naan defal li defal la defal la. Mhm. li li nga xam ne moom moo daal président Mauritanie. oui Ould Aziz. Mhm. ak son remplaçant loolu moo koy daal. Hmm. loolu moo koy daal waaw dégg naa nag ñu naan Amadou Ba Amadou Ba su buggee gouverner Sénégal ci jàmm parce que pour mu ré defay réalisation il faut jàmm am ci biir Sénégal. surtout képp ku fi toog mu Amadou Ba muy keneen il faut mu restaurer la démocratie sénégalaise. Mhm. Macky dafa yàq démocratie Sénégal. Mhm. képp ku fi wuute muy Amadou Ba dama daan damay faral di wax sax même su dee Amadou Sall doom bi mu jur. Mhm. <laughs> moo ko wuute woon fii. wala eh, Alioune Sall rakkam bi. bokk ci gën a ragal Sonko d'ailleurs moom. Amadou eh, Aliou Sall <laughs> waaw. ndax soo ko dégg moo ci Sonko rek moom. <laughs> waaw mi ngi fi même su dee Alioune Sall ak Amadou Sall ñoo ko wuute woon. dinañu opérer rupture par rapport ak Macky Sall nu mu doxalee. loolu am na ci ay firnde yu le roi Sandor du Maroc. Mm. kan moo gënoon nekk dictateur waaye doom ji mu jur. Mm-hmm. bi mu ko remplacer sur le trône du Maroc. Mm-hmm. lu mu njëkk def mooy ubbi kaso yépp nekk ci biir Maroc. y compris les kaso yi gën a nekk secret nekk ci biir Sahara bi. Mm-hmm. lépp la ubbi ñëpp génne. d'accord waaw. mais on jox assemblée nationale pouvoir bi donc dellu askan bi pouvoir bi. n'est-ce pas toog nag. développé nag Maroc. Mhm. waaw kon Amadou Ba su ñëwee amul choix su dee moom moo fi toog nag. Mhm. xaw ma kan la Sénégalais di wóolu mu toog fii. Mhm. il sera obligé de faire la rupture su dee dafa nekk une personne intelligente. bu ko considérer régime il est obligé de faire ça. amul ah, voilà il est obligé de faire ça parce que mënu fi nekk continuer ci tension situation de tension boo xam ne. Mhm. moom la Macky Sall créé fii n'est-ce pas euh, pendant ces ces trois dernières années. d'accord euh, dinañu ñëw ci cas Amadou Ba parce que nag ñu ñuy vanter comme quoi il va passer dès le premier tour. mais aujourd'hui waa Pastef euh, lañ lañuy la ñuy wax d'abord est-ce que ñoom jamono ji maanaam waxtu wi ñu te tollu tembe ci diw ci système bi la kee bokkul ci système bi est-ce que ci loolu lañ toll wala est-ce que waruñu nekk ci ci ay seen ay stratégie fexe ba euh, li ma wax léegi Ousmane Sonko pesé de tout son poids électoral mhm. Mhm. au lieu de nekk fi par exemple naan Habib Sy ci système bi la kële du nitu système kee système la est-ce que waruñu reconcentré waat seen ay stratégie waaw loolu erreur bu rëy la <coughs> erreur bu rëy la mhm. du ma kii parce que dafa bokk ci système bi <coughs> erreur bu rëy la te je pense que ñoom wane nañu piège boobu duñ ci duñ ci daanu parce que ndax soo seetee seen intercoalition yeewi ak wàllu mais wàllu ñu ñu fa nekk mooy waa PDS waaw loolu mooy dañu àndoon déjà liggéey ak waa PDS ci intercoalition wàllu yeewi n'est-ce pas mhm. liggéey ak ñoo xam ne bokkoon ci système bi dañu leen doon critiquer ci loolu soo jëlee tamit kaw Khalifa Sall Khalifa Sall c'est le PS c'est le système du PS mais liggéey nañu ak moom te ñu ngi liggéey ak Habib si ñu ngi liggéey ak Aïda Mbodj ak keneen ak keneen mbir mi pour man ay mbirum loi la maanaam bees bi nga xam ne euh, ku munte toog ku munte toog li xaar ci moom mooy mu jël ay loi yoo xam ne dina teg Sénégal ci ci ci yoon ay loi yoo xam ne ku fi laal alal réew mi ñu jébbal la yoon waaw maanaam ñu fexe ba maanaam procureur mi nga xam ne euh, euh, kii la kii lay wuyu président lay wuyu n'est-ce pas parce que su dee président commu euh, procureur président lay li nga xam ne moom moo laal euh, euh, ay nitu président mais du ko topp mm-hmm. parce que ñi nga xam ne ñoom la ñu épinglé mais c'est des DG de société mm-hmm. ay directeur d'agence mais ñoo yëpp Macky moo ci politique mm-hmm. tey suñu la nommé à la tête agence d'une entreprise nationale te defoo politique dañ leen fay jëli donc Macky moo pour ñu dugg ci politique te suñu dugg ci politique pour ñu am base électorale il faut que ñu am xaalis xaalis bu fan lañu ko jëlee fan lañ jëlee xaalis boobu eh ministre su ne ministre defuloo politique juróom benn weer sa doo ko fa def eh xoolal ma sama jigéen bi Oulimata Oulimata Sarr deful politique ñaata weer la def ci nguur gi même pas six mois ñu génn ko donc képp ku nekk ci nguur gi rek n'est-ce pas tu es la politique war def politique ci biir Sénégal il mhm, am xaalis. waaw na ñu bëri ñuy wax parce waaw loolu sa loolu loolu sa am na loolu loolu loolu am na mais moo tax dama ne ñi bëri ñi nga xam ne tey Macky mënul dafa teg tànkam seen dossier nest pa mooy ay nit yoo xam ne dañ dañ dañ dañ dañ koy political y compris le dossier de la de de de la Covid 19 ay nit yoo xam ne dañ koy political kon. Euh, fu ñu jëlee alal boobu di ci politique. Mhm. fan lañ ko jëlee. kon il peut pas les envoyer à l'abattoir. loolu je pense que dañ ko dañ ko dañ ko war a constater évidemment euh, tous les systèmes euh, machiavéliques noonu la ñuy doxee. su dee am ngay casserole ñu def les promotions euh, pour que lu ñu la sant nga def ko loolu régime bëri dañ ko def mhm. mais je pense que li importance mooy fexe ba ñu def ay réformes. def ay réformes fexe ba tous les corps de de contrôle de l'État. n'est-ce pas muy cour de comptes muy IGE muy euh, muy IGF n'est-ce pas muy OFNAC ak ñeneen ak ñeneen seeni rapport ñu mun ko jubal directement en juge d'instruction directement jox ko benn juge d'instruction ñu bañ ko jaaral ci procureur pour que mu seet est-ce que war a topp wala warul topp su dee OFNAC def na enquête am ba pare def rapport am ñu ko jubal directement juge d'instruction pour mu ubbi benn benn benn benn l'enquête je pense que loolu suñ ko defee. Euh, dina dina dinañu vraiment encourager la lutte contre la corruption. Mm-hmm. Euh, et puis aussi jëlee mesures hardies. Mm-hmm. Eh, dégg naa euh, membre.